<laughs> dégg ah, mais combat bi mm-hmm. ba ma koy jël man dama jàpp si combat Balla Gaye Bombardier la dama war a si doomu ma ko jël. ok ndax ma defet. ah mais boobu na ceeg sa manager. non danga ma déglu rek dama laaj Massa bi ah, ma kan la yooyu lay si koor ma si koor gi ñu ma léegi combat bi après koor gi la deux mois la te si ku toog huit ans bëriwoo yaa ngi dégg corona du gën a si. Mm. yaa ngi dégg mm. Père Gaston tam gi ñu si làmb ji xam nga day xaw a feeñ yéen ndax Père Gaston gi si làmb baaxul ñun non day wax dëgg yàlla tax moom gi si làmb ji baaxul ñun Père Père da nga ñaanal mu yàgg si làmb ji parce que euh. gëjëm làmb baaxul ñun baaxul baaxul moom parce moom moom laaree la laa raa si làmb laa fi gëj moo tax mu baaxul ñun da nga ñaanal mu yàgg fi loolu tamit <laughs> yaa ngi dégg. mais moom bi mu ñëwee dafay def ay victoire de. ay yu baax la fi nekk. waaw de <laughs> victoire laa mais da nga ñu dóor rek nga daal. man xam nga victoire laa man moom man dama lay wax man billaay dama rus. man man man man rus. parce que neexuma man man dama bëgg a man man <laughs> ma ne Karajo amul temps wu génne génne combat bi. yaa ngi dégg leer na ma ne ci direct bi mënu woon génne combat. yaa ngi dégg waaw oui ma. waaw tallal bee gaaw. waaw même àggali. waaw parce ke doon naa ku yoo moo naka doomu daanu làmb rek jël na ku yoo xam ne moom doon naa ku moo nekk daanu làmb rek parce que doomu daanu doo doo judd fekk fi mais nga jël xale xale xale bu ay xale kii ñoo bokk carrière ñoo maase man xale bu ndaw la dafa nànk waaw dëgg dëgg man la Alioune Seye daan nga ma d'accord mhm. mais mit naa mucc ma xam nga mucc ma ni a dëgg. Hmm. man lu ma war dëgg dëgg dëgg. waaw tey ñu laa wanaat combat bi nga xam na ah, ma métti la maanaam comme ci a comme dëgg dëgg dëgg dëgg. loolu hmm. nekkul si man. boo xoolee sama raasuma dafa yees. élément na doo daanu moom daanu nga rek. Hmm. kon maa ngi koy ñaan yàlla nga ko dem di ji. man ab bor boo xam ne si kàttu suñu borom. bor ban ngay fay yow ko fàtte ne yaa ngi yaa ngi wàcc. waaw dëgg ma la yow yéegoo de. waaw dëgg ma la man wi ma man fi taalaa jugee. yow mi ñu doon laaj Sa Thiès père nee na Sa Thiès nga ko doon laaj. waaw dëgg boo ñëwoon Sa Thiès dañ lay yóbbu kii. wi ma ku du Sa Thiès sama naka daal. lambalaate dëgg ma la. ku du Sa Thiès dafa naan ku daan Balla Gaye mu ko ma doon. Eh, ba nga daan Balla Gaye loolu yàgg na bàyyi la Balla Gaye am doon boobu Balla Gaye di gaaw dëgg boobu. boobu Balla Gaye di baax baax dëgg Isa boy bu ñuul bi. yaa ngi dégg. kii def ko sim def ko. moo tax yaa ngi dégg. biidu biidu bisu ma ko waxee ma man. Ah. yow xanaa xaw ma mbër. xaw ma mbër. Issa saa yu entraîné sama kër lay jaar. Hmm. moo Xaadim Ndiaye numéro 2 mais jamono yi père huit ans la toog tamit ba kan lay àndal contact. Xaadim Ndiaye numéro un. Hmm. si. non saa yu dañuy ànd ba kontaan yow ak moom gi waaw d'accord mais mbay mbay mbay waxuma ne moom ngay kontaan dama ne moom ngay àndal géej di kontaan dama ne moom laa ak moom géej di kontaan su ma la gisoon ngay ak rëg-rëg su ma na ne yaa ngi kontaan ak rëg-rëg su ma la gisoon ngay kontaan ak kuli fay su ma ñëwee la yaa ngi kontaan ak kuli fay dama am tontu père li ñuy wax il faut ñu tontu ko si. waaw man fii laa toog man li ma wax ndax dëgg la wala. waaw dafa naa la tontu la li may wax. père père tontu na ah. ma wax ndax bu ne gu ndaw la ma wax mu teggi ko waaw. ah waaw xaar mu wax mais boo teggee da ngay teg dara. waaw moo tax ma teg dara da ngay da ngay may cadreur bi mu waaw d'accord ok yaa ngi dégg. waaw kii suñu père la da nga koy ñaanal yàgg fi loolu di wér mm-hmm. ko jox kër la mm-hmm. raw yoo sax ci début. waaw waaw na ko si ñun moom it wax dëgg nga tamit nit ki war laa wax benn loo xam contact ñi di ngeen entraînement romb la mais suñuy contacté contact. waaw moo ma ne ñoo wax dama àndoon fajar gi daw yi yaa ngi dégg boobu maa nekk dëgg ma ma jikka mu xaw xaw taay mu yar sama champion jaar si làmb waaw mu woo ma ma ñëw ne ka per xam laa sol sànni mu góos bi kese ndax ñoom ñëpp maa leen dàq xeex yaa ngi dégg duma man nga sànni mu la Moussa Ndogo bi ñëpp ku ma ci xeexal duma la. yaa ngi dégg. parce que borom Touba. waaw ah, mais par nga déglu. billaahi Moussa Ndogo bi. laajal bàyyi ma ñor ma la la nekk. dafa dafa dafa gos. su ma taxawee sado su ma la tegalee garde dama lay duma su ma la tegalee force garde dama lay duma laaj ko ndax mën naa xeex wala. laaj ko non laaj ko ndax mën naa xeex wala. ah bisu combat baa ngi nii. ah combat baa ngi nii ça mais Issa commentaire al combat bi Issa commentaire al dama li ma jaaxal ci làmb ji <laughs> Isaakou yow làmb ji yow yaa yow yaa woote xeex waaw mais moom mooy làmb ji làmbal moom ba dal di bëri doon wax commentéral commentéral ñu ngi seetaan waaw dëgg ma la xoolal kii dëgg ma la doon na ko yóbbu mën naa ko doomu daal doon naa ko expliqué boo xam mën naa ko doomu daal làmb la rek waaw commentéral doon nga benn droite droite continué Isaac Aline waaw jël nga uppercut bu la daaneel ci làmb ji yow waaw comme ni mu ko waxee làmb la door na épercule bu daal nag wax dëgg yàlla. làmb waaw kaawa nga foofu. waaw làmb la kaawu ma nag kaawu ma. kaawu ma Aliou kaawu ma nag Aliou tëral na foofu. xam nga kawal aaraat bu bu bu bu saa ne am. ni si la jëlee ko jëlee kaaw doon na la koo nga tërës. bon yaa ngi dégg. xëy na taw mais mais Issa xam nga lan laa bëgg mais yëg nga wax ni moom muy wax da koy teggi ku bi yëgoon nga ko yëgoon nga ko dal na mais kaaw na ah, Aliou loolu que loolu yaa ngi koy wax waaw dëgg man la Karajo mayat muy commentaire am na daal Aliou Seye sa yaru gi nga nekkee nga war a baax te wax ak Issa Pouye nee na da nga kaaw ci làmb ji. non kaawtewu ma. xam a Issa dafa neex rek. man effectivement non bi mu kaawee laa bëgg nga wan ñu ko. man damaa nangu ma yaa ngi dégg. kalaay bi ñëwal ñu waay waaye acca. su ma daanee damay nangu ne moom du fi gàtt moom ñëwal ci kaw kaw bi kii moom moom loo bëri bëri lañ bëri. yaa ngi dégg lamb moom lamb eh, ñëwal ci kaw kaw bi Issa xoolal kaw kawam nañu xool ku kaw bi. yow Moussa Ndoye xaaral ñu ngi ñëw si yow ngay jéem si man tamit. Ah. yow ndànk rek yow dañu la yëkkati ci kaw. lu ñu mën a wax si man. fii xam nga la Sa Thiès woon noonu lay nekk fii di. man gën a lëbu laa de. làmb ji ci kanam làmb jeexatul yaa ngi dégg. man li sama kanam moo ëpp sama ginnaaw. mais que huit ans moom ku ko toog moom ku bu ne mën nga dafa de. bisu xam nga ngay comprendre soo waxee combat ngay comprendre incha allah hmm. dafa des. mais yow dafa mel ni yow oh. Eh, tàllalal moo soxor protestant yaa ah. bi dafa naawaale dafa des man kii même su ma ko daanoon même su ma ko daanoon torow ma barke alxuraan karim léegi ma ne daam ma daam ma mitti moom nu ma war a mittee dëgg xam nga mitti ma dëgg. Mm, parce que pare woo cinquante damaa préparé dëgg. man bu ma ñëwoon sax ma daanu quoi. Mm-hmm. parce que damaa gën a pare. ka ñaanal nag dama yàlla ko ji. Modou Mbaye Issa dafa kontaan di wax rek. Mm. waaw wax dëgg yàlla. mais nee nga kaw nga de jën nga ku kaw de. non loolu moom xam nga moom la concerné man xam naa man mi mu dóor xam naa ne kaawate wu ma te gis nañ làmb ji mu demee xëy na moom daa baax di wax nii rek moom bu préparé woon huit mois laa lay wax nii maa ko maa ko ci gën a nekk fuuf lu ma ko waxoon rek bu gëddee mu yéex mu gaaw mu yéex day tàllal aw boobu léegi maa ngi toog xam moom muy nekk fii di wax rek am na loo xam ne jaru ko bari nañ ba pare xam nga daa a rafet rek mais ba nga xam ne pare woo kon looy waxee ne kon maa la ah, la waxoon non dama ma a préparé ma ko sama xamoon combat bi deux mois du ma jël parce xam naa ne champion du ko moom ma koy daan préparé deux mois sans la rek ci man loolu moo xam naa ko. xam la moo tax mu neex. waaw boo dégloo version premier festival bi. waaw ku toog huit ans mu la ko. Karajo nag génn Karajo may ñu version wu Santé waay. waaw parce que da nga woon kii comme. kii Karajo ñu def Santé waaw comme yaaw jàll yooyu nga waxoon daal. Ah, yow yaa ngi foofu waaw man loolu ma jaaxal daal ah, ah ma ngi saalaatu supporté. waaw bisu ma yóbbu rek kii man. ne si man. ma kan fii c'est confrontation yow. dama a naa préparé ba ba njëkk ñu ngi dóor mu daanu loolu dara ñaata ma def ñaata ma def dóor daanu loolu waaye la ah. mënul dégg loolu du dara dóor mu daanu dara ñaata ma def dóor daanu la sa kaw bi yow yow dóor mu daanu yow da nga dóor mu jaaxaat waaw dafa naan ko d'accord waaw ñaata ma def dóor daanu wala ma damay laaj a biisu ndax mën na njëkk dóor mu daanu lay laaj ma déedéet non damay laaj <laughs> njëkk ñu laa dóor nga daan <laughs> waaw waaye dóor mu jaaxaan ñaata ko ma la bëri ñaata ko ma la bëri dóor mu jaaxaan tëpp waaw ñaata ko ma la bëri waaw ñaata ko ma la bëri mbër mu mag nga 18 victoire 18. 18 victoire nga am. 6 défaites. 6 défaites. waaw dama la ma ñaata combat la bëri 24 waaw ñaata combat la bëri ñi ma soo kaw ci lamb man sant yàlla bu baax. xam nga dafa sant yàlla bu baax kaaw bi nag man gis nga kaaw baaxul. Modou parce que day tax loo mus a def dañ koy koy fàtte waaw mais dafa naan sant yàlla man lii ak dafa la man dafa la. tey bi nga <coughs> ay défaite. non non waaw dafa lamb victoire la jógee. waaw victoire nga jógee avant victoire bi ci défaite nga jógee woon. mooy bi ngay raam. maa eh. déet damay laaj. Modou Mbaye. waaw du ñëwul ci defet. non bis yow combat bi combat mu ci ndam la jógee. waaw avant avant boobu bi muy raam mooy bi ko sos daal. waaw lépp ay boobu yow. bi muy raam laa wax bi muy raam. man dama jaaxle. non man amoo ko may raam bi da ngaa juum raam non da ngaa juum xew raam nga joxale ma. waaw. karaajo karaajo may ma combat am ak sos bi muy raam. bi ngay raam xooli sa bët yi nii ah boobu yow tamit. non boobu raamu loolu ñëpp ah yow tamit faa maa faa xar rek. loolu maa faa xar maa doon sonko faa xar ma. sos maa sos maa ko zone mag nga daan maa ko yóbbu Pikine waaw man dama la. képp Pikine la ko daan mais comme ma bisu bisu bi ma bisu. waaw bu muy raam xam nga bisu man laa may bëgg naa bëri yëpp victoire. maa ko yóbbu ca Pikine mu daan sof. Eh, eh, eh. laa may bëgg naa bëri yëpp victoire Pikine mu daan maa Bakar Diallo sama sama sama sama permet dafa rafet. kii bi muy raam ci combat bi yow yaa ngi ci. mënu ma bi xaw xaw a lamb ki xam na lamb sama permet dafa rafet. xaaral de. père bu muy raam. waaw d'accord <laughs> xale bisu bisu. père question serré laa la tontu de bu ci ni benn détail waaw wala déet yaa ngi woon ci làmb ji wala nekkoon ci làmb ji. man yaa ngi woon ci làmb ji wala nekkoon ci làmb ji. <laughs> yóbbu naa ko Pikine mu daan Zos. te waxuma mu daan Babacar Diallo bu Faas. waaw mu daan Babacar Diallo bu eh, Faas. champion dëgg la ma yóbbu ko mu daan Balla Gaye. xam naa ne kuy toog ci côté bii du baax la parce que la dëgg la toogoon. ma yóbbu ko mu daan Tafa la dëgg yow. la dëgg yow sama copain. waaw dëgg baax na kenn def feneen yi feneen yi de. waaw dama bëgg xam nga lan la gën baax yaa ngi dégg ñun du ñàkk ñàkk man sama partenaire maa sant victoire bi ne man sant yàlla lamb tamit am naa journée sant naa yàlla mais victoire boo xamante ne xam nga waaw dama wax la wax dama dégg la dégg yow même àggal ah. man lamb dama sant yàlla bu baax toroxuma ci lamb damaa ginnaaw yàlla mu ne ma tabax si làmb père Gaston mi da a ñaanal yàgg si loo dëgër macha allah billaahi wallaahi su ma si amee waa toog moom la yaa ngi dégg mhm. man bëgg ma mbëri torox si làmb di ñaanal mbëri yëpp nag teg si làmb mais am naa fi si defet ne am si làmb damay bàyyi làmb man ndax man yooyu am si yi nekk di leen cek fa aguñu fa hmm. làmb la rek kii war naa mën a kii. waaw ku mën mën na kaa daan Aliou Cissé champion la. ki doon mën mën mm-hmm. jël combat. te yow ni nga nekkee professionnel ni nga nekkee ndaanaan. làmb ñëpp ñu xam ne yow ndaanaan nga. Moussa Ndoye Issa Pouye di jël combat di bëreeg ndaanaan bu mel ne Alioune Seye yow bëreeg nga ak Alioune Seye. Mm-hmm. Moussa Ndoye xam nga Alioune Seye. Mm-hmm. xam nga ne ndaanaan la jël ku mel ne Alioune ñu wax la ni combat bi c'est à deux mois boo bañee tey jii nii li ah, am mais nga bañ nga ni du ma bëree loolu. dama la yàlla xam na ne combat bi dama la. billaahi soo xamante doomu aay doom ma ko jël fekk mooy combat yu ci nekk pare. yow tu ci waaye yow da ngaa respect Gaston moo tax. non dégg nga man la xam nga c'est que Sénégal. munoo gàtt munoo yow tamit munoo gàtt père Gaston. xam nga Sénégal mooy problème Sénégal xam nga problème Sénégal doo doo dalal wax ñun daa ragal. waaw mbër bu professionnel yaa ngi dégg ku manqué sax dafa ngaa jël combat de deux jours. mais man ma toog huit ans deux mois deux mois ci koor gi benn un mois koor gi ànd la koor gi donc da nga fay dem dem ànd la ji benn séance gi ànd la koor gi yaa ngi dégg maanaam. yow Aliou koor gi ñaata séance la entraîné. non benn séance rek laa doon entraîné. yaa boo fekkoon ma pare bu yàgg. yaa ngi dégg ah, koor gi yow pare woon nga. boo pare woon nga nii doon combat de te lii père. Eh, combat la waaye ban koog doon combat. non non non jot a huit mois. waaw Makan waaw wul. non kii day ruubee. Makan huit ma xam dëgg ñi ma xam dëgg ñoom méttiwul leen da nga leen yow li sonn ma parce que da nga gis la. père yow méttiwul metti oh. na ma loolu. waaw <laughs> ah, dama ci naqari. <laughs> waaw moom mooy bi kii di <laughs> bi muy daan Babacar Diallo bu Faas. bu Faas waaw. maa ko yóbbuwoon. Mhm. ca Alassane Djigo. Mhm. ba muy daan Zos. Mhm. waaw maa yóbbu ca Alassane kii maa ko ca Alassane Djigo. ba muy daan. Ousa Sow Balla Gaye. maa ko yóbbu. daan tafatin man maa ko mu dem dem ba ñëpp. di ko jaawale ak Auguste Mbagnick Sène bu gànjul ndax waaw waaw dañoo niroo dëgg la mhm. daan ma déggal waaye daawuma lekk daaw daaw la jox dara déedéet isa lu tax yow tamit waaw sama wërsëg maanaam sama sama wërsëg moo nekkul ci loxo non père si ku ma ko xam nga àdduna ah man dama nit koo xam ne man mm. dafa naa yow temps rek koo xam ne man sama xaalis ma ko téye sax fu mu leer man tamit damay nit koo xam ne ah. du ma ñaan doomu. waaw damay màggali père du ma ñaan man. mais li ngeen a defal yéen waaw ma non. donc ñii. ñoo ñii maa fi man maa leen war a dimbali man maay jóg. non non non man maa mën a jóg sol sama dàll dem gis ministre bi wax ak moom ci yow. non non man maa mën a jóg sol sama dàll gis président Macky Sall wax ak moom ci yow. waaw fi mu ne nag yaay représenté foofu. waaw d'accord waaw. la man. yàlla may na nit ñu baax. maa ngi sant yàlla baax yàlla may na nit ñu baax baax ba bëgg a jëbëri yàgg na trop mais mais Issa xam nga du lu loolu père fi muy waxee mooy moom dafa leen gëm mais xam nga dafa la wax ni dafa la wax ni du wax télé quoi non man ku ma ko du wax télé confrontation nan wax du ma wax loo xam ne. te Lac de Guiers numéro 2 toog fii ma wax ak moom ba mu bëgg a jotee ak man. nga nar maa dóor ba nar maa dóor man. waaw may tourner autour du pot. su ma ko defee ñu jiñ ma naa. génn Modou Mbaye. Lac de Guiers dañ koy wax dama ne Issa Pouye su Lac de Guiers numéro 2 toogee foofu. ma wax ak nga toog fii. ma tourné autour. mais daal wala ma déggu la. naa fekk laay doon mais dama la wax di waxi télé ay jiw la ma. wax lan nga wax non non kase. waxuma la yow dama ne waa ci amul géej laa wax. Issa waxul yow kase. waxuma la yow waxuma la yow waxuma la yow waxuma la yow waxuma la yow waxuma la yow waxuma la yow waxuma la yow waxuma la yow waxuma la ma man ñaanuma nga defal ma dama laa woon ne musuma bëri la wax bëri la wax bëri carré géej laa wax l'ensemble des lutteurs dama ne je parle de l'ensemble des lutteurs de Thiaroye sur Mer écurie Thiaroye barka borom Touba ci wax ci waxin la dafa ne barka borom Touba moom moo leen mën a ku ko ci defal defal cent francs waaw loolu la mën a waxul Issa Pouye waxul Reug Reug waxul ma Samba mennum Balla Gaye ci mbër moom ma samay deux cent mille mooy ba ma taxawee ba nekk ci dernier réglage digganteem ak Mohamed Ndao Tyson ma taxaw analyser li ma analyser te pourtant keroog ñëpp daw ku ñu tàmbil micro da ngaa wane ginnaaw ma taxaw analyser sunu borom ne amin mu dal. li ngay Nandi Fall Mamaya. waaw léegi waaw. toogal ma ñëw. ah waaw parce que. Balla Gaye. Hmm. Yaxya Diop Yékini. waaw mu leer mu ngi fii hmm. am nga banque bi maa fekkee. Issa ñu ngi ñëwaat ci sa bàkku ak dugub si bi instant nii Karajo dama bëgg nga préparer ñu élément bi nga xamante ne moom la Sa Thiès dugub see. ah ak ay la mu tuus ah, ah, ah. la mu tuus mook ah, adversaire loolu moom nañ ko wax te dee ñoo yor làmb lañ tuus moom keroog amatul waaye <laughs> <laughs> gis nga kee. <laughs> bàyyi ma tàllal mi tàllal dafa daan sama mbër moo tax moo ko faral tey sama mbër la dóor mu jaaxaat. Karaajo élément bi bu fekkee pare na nga may ñu léegi léegi li nga xamante ne moom mooy tuusu ñaari mbër ci combat bu mag bi. boole ci boole ci boole ci boole ci bu rek bu kii. fu kan tàllal. tàllal tàllal mii ku toog huit ans bëriwul lañ ko jox mu dóor ku mu kaw wóorul. ma kan seet leen li ngeen di def. waaw xam ni aéré ma jàpp quoi. Ah. <laughs> mais nag bisu Issa Pouye mu pare bisu Issa Pouye mu pare rek. Issa Pouye dafa dëgg rek. Issa Pouye mu pare xool daa faale sa Thiès damay wax yow. Issa loolu du ma la koy wax dama la mitti naa mitti ma barke afran kali ah. mitti naa mitti ma parce que sama xalaatee c'est normal quoi. mais Issa est-ce que yow professionnellement war waroon ngaa jël combat bi tamit en deux mois deux mois. dama la dama eh, la dama la erreur bi combat ma ko jël fay. dama la erreur bi dama la erreur bi. dama la erreur bi mu génne ci yow nga ñëwaat. Eh, fa ñun ma combat bi <laughs> deux mois la yaa dégg loolu mooy erreur bi dama la. affaire bi métti na la de. tey naa kàkk man man ma kaa bëri lii du yomb. su ma xamoon loolu du ma ko jël parce que dafa jige. parce que mais moo tax ngeen jox ko combat deux mois. non bon xam nga mbër dafa war a pare tamit. Euh,